asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ak followers of Eco International seen programme yi waxtaani islam noonu lañ koy andilaat fii another uh, episode of waxtaani islam incha allahu rabi am another interesting topic boo xam ne uh, it's going to be uh, interesting though waa dafa nekk loo xam ne dafa jaf ñu delloo waa si suñu borom waa balaa wax di bëri ama baay yaa oustaz mu nuyoo wate ak askan bi oustaz asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di wax mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di ñëwaat fii beneen yoon si Eco TV International di ñëw fii nii di defaat fii beneen programme bu am solo boo xam ne ñëpp la soxal daf ñuy delluwaat ñu ñëpp suñ euh, si suñ borom di nuyu waa Eco TV international yëpp di nuyu waa jëri bu baax a baax a baax nga xam ne saa yu nekk rek ñu suñ gannaaw du ñu toppatoo du ñu tette nga xam ne lépp lu ñuy dugg rek faw ñu am si tàggoo ak yëg la balañ see dugg ñuy ñaanal bépp jullit boo xam ne mu si ko àdduna yàlla ne yàlla defar jàmm ak sutura. Ah, jërëjëf Aya ah, Oustaz si nuyoo bi ah, nañ ko daan defee rek balaa ñuy dugg si waxtaan bi di gërëm suñu borom di sant moo ñu may fan bi may ñu kattan bi may ñu weer bi pour ñu mën a fii si pale bi du mën a am waxtaan ak suñu mbokki di julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari waajur yi suma waajur bu góor bi dellu si ñaan yàlla xare ko àjjana suuf bi seen si kaw di jiital ko bàkkaaram ak képp julli ku dellu seen borom yal na leen yàlla xare àjjana suma waajur bu jigéen ma ko ñaanal yàlla may may ko fan bu gudda yàlla may ko wér bu yaram yàlla sutura ko yàlla aar ko aar njabooti jàppale ko si yóbbu njabooti incha allah rabi asuma jëkkër tamit di kontaan si moom bu baax di ko gërëm saa yu nekk asuma toogee si kala bi may kontaan di wax suma jëkkër parce que ah moom may opportunité pour ma ñëw toog si tale bi mën a awantaane sama mbokki jullit yi ah di ñaan yàlla mu may ko fan bu gudda may ko bér bu yaram ah sutura ko sutural njaboot yi njaboot yu nekk si ronam yàlla jàppale ko yóbbu si moom yàlla aar ko yàlla jàppale ko yàlla may ko kàttan bu mu mën a def liggéeyam bi ah di ñaan yàlla yàlla jàppale pépp jullit yi muslim yàlla yokk suñ imaan bi yàlla ña jàppale ñu suñ liggéey yi yàlla may ñu fan bu gudda may ñu wér bu yaram yàlla sutural ñu aar ñu te musal ñu si si ceytaane musal ñu si ak balaa incha allahu rabi di kontaan si oustaz tamit saa yu nekk su ma ko oyee fi si Eco TV international oustaz uh, is always ready moom tamit dina ko ooyee ever ready to come to Eco TV International to deliver an important message that he has for us uh, Ustaz na ñaan yàlla yàlla may ko fan bu gën yàlla may ko wér gu yaram moo defee liggéeyam bi yàlla jàppale la si seen liggéey bi yàlla jàppale la si yóbbu njabooti yàlla barkeel la incha allah rabbi di la wax jërëjëf bu baax si sa time bi nga jël di ñëw fii si Eco TV International léegi nag ñu deliver suñ topic of discussion suñ topic of discussion te moo nekk deet am na ñoo xam ne dañoo wax ne moo xam ne xaw ma ñii moom te lu ñu waa dafa loo xam ne ah bi ñu ko waxee suñ mooy dee dafa nekk loo xam ne foog ñu waxtaanee ko parce que daf ñu delloo si suñ borom subhanahu wa taala waa léegi dinaa bàyyi yaa oustaz ah, mu jël kàddu bi mu wax ñu lan la yàlla wax si alquran bi si ah, dee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 ndaxte lu nga xam ne la yàlla daf ko boolee si suñ dund bi mbir la mu nga xam ne dafa ànd ak jëmm buñ ko génnee si jëmm ji dara desatul fa te jëmm ji luñ fay génne ñu ngi koy tuddee ruux moom moo amee doomu aadama ruux buñ ko génne si doomu aadama rek boromam dee na bu boobaa am na tur beneen buy ñëw benn ñu ne ko niw mbaa ñu ne ko faatu mbaa ñu ne ko gaañu dee ci boppam loolu la mooy def yàlla moo ñu ko tuddaloo ci quraan mu ne alladi xalaqa al mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moom moo defar dee moom moo defar dund mu nattaleen ñoom ñaar ñu seet ban moo ci gënaa rafet jëf ndaxte njëkkut a defar dund dee la njëkkee defar comme nu mu njëkkee defaree asamaan ak suuf dafa defar asamaan ba pare ba pare door si teg suuf ndaxte soo xoolee si Qur'an bi yépp asamaan laay njëkkee door a wàcc si suuf boo xoolee tamit si biir Qur'an dee laay njëkkee door a si si lan dund ndaxte doomu aadama ba bañ koy defar sa njëlbeen dara nekkutoon si moom. yàlla da koo defar ni mu bàyyi ko ab diir def dara si moom si la ñëw jël lan ruux mu dugal ko si moom bu mu dugalee ruux bi si la ko rey mu jëlaat ruux bi fuufaat ko mu dekkilaat ko kon foofu noonu di nga gis ne dee la njëkkaa defar mu door a asi dund bu mu defaree loolu nag ba pare mu dugal ko ci doomu aadama ne man yàlla man maa leen di rey man yàlla man maa leen di dundal te si man yàlla si ngeen di dellu si waat moo tax dañuy faral di dégg ne nit bu gaañoo ñuy jàng ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si suñ borom lañ baye ko te suñ borom si la ñuy delluwaat kon delluwaat boobu noonu mooy firi lan deejo yu noonu ndaxte kenn ku nekk bala ngaa mun a delluwaat sa borom danga nga dee ba pare waaye balaa dellu bi am na lu fa jiitu mooy dundin gi lu dundut du mën a dee waaye lu dund rekk dina dee noon lañ yàlla defaree ak suñ dund bi ndaxte suñu seetee nit ci boppam dugal nañ lépp ci moom nit dina dee fekk tamit deem jotagut dañ ko dee faral di ko wax waaye fekk ne dee jooy noonu yàlla moo ko tudd si moom amul bépp nit boo xam ne mu ngi si kaw àdduna bi fii di dund te sa dee yàlla tudduwut ko ndaxte am na benn place boo xam ne bépp doomu aadama turam mu fa ñu ngi fa bina turam teg temps bi buy jot xob bi su rotee rek pere nga am na xob yoo xam ne xob yu bees pul lañ doo bàyyi xel si mango mhm. da gis xob bu ees pul jékki-jékki rek rot nga jékki-jékki gisaa benn xob bu xaw a green rafet ba bugga dee rot nga gis boo xam ne dafa yàgg si kaw kaw kaw waaye lan moo fa jiitu yu ees yi waaye terewul mu fa waaye moo tam dafay jékki-jékki rek rot fekk benn bu nekk tay moom moo jot mhm. nit nag noonu la ko yàlla defaree maanaam am na ñoo xam ne si biir foofu la ñuy faatu am na ñoo xam ne dañuy dem ba dund ba nokki five minutes su ko àdduna bi gaañ am na ñoo xam ne seen xale ya am na ñoo xam ne dañuy dem ba doon xaw a waxambaale comme suñu am na ñoo xam ne dañuy dem ba nekk mag ëpp ñu am na ñoo xam ne dañuy dem ba nekk mag am na ñoo xam ne dañuy dem ba àgg foofu noonu ba si yàlla fu ma waxee si quraan summa radadnaahu asfala saafiliin ñu delloo leen bañ gënaa tuuti woon nañ meloon ca ba nga staatee woon yàlla dina la ko delloowaat di la ko delloowaat ba nga nekk lan ba nga nekkal loolu tuuti maa solowaat am na ñoo xam ne dinañ dem ba nga xam ne seen dundin ak dundini xale ñooy yem ndax te lan lañ ñoom xam nañ ne seen boppa ni seen at yi luñ si yokk rek dee mooy see tege waaye ñoom xelaatuñ ne ndax dinañ dund at yooyu comme ni xale bi nu mu commencé kenn xamut fan la mooy mujje waaye mag bu dem ba doon mag moom mu ngi sóoraale anytime ne man su dee mun naa taxaw waaye nekkul ne xale bu ndaw si boppam moom moo mun a sóoraale loolu noonu ndaxte soo ko gisee noonu la yàlla defaree comme nu defaree suñu baaraam yi ni ñuy sutante ba keroog yow ma xiyam nit ñi yëpp nii lañuy ñuy mel yàlla jëlu ñëpp dajale leen waaye daf ñu lan ëppalante ci biir dee si boppam. suñ bàyyee xel moos di suñ société bi luñ olof di woo tombel mooy waral ay gaaf di nga wax nit ki ne dinaa la rey nit kooku noonu jékki-jékki rek dee ñu ne diwa ko rey wax na ko si gémmiñ waaye miinu ne dina ko rey ñaata xale ñooy teg fii nii si mbedd mi nekk fii nii daw su ma la jàppee rek dinaa la rey su ma rek waaye taxul nga dem rey borom xëy na si biir wax boobu noonu yàlla moo ko jaarale si làmmiñ bi de yow bees bi ngee ñëw di nga wax ne diw ne su ma la jàppee dinaa la rey diw euh, kooku noonu faatu ñu ne yow la waaye fekk na suñ borom moom moo ko rey fii àdduna bi képp koo xam ne faatu nga suñu borom moo la rey te suñ borom dafa jël lépp seddale ko kenn ku nekk lu war a ñëw si yow ak loo war a am daf ko jël lépp seddale ko nit ñi. ñu nga xam ne ñoo war a dundalaat ci kaw àdduna bi yàlla dafa jël alal ak barke yëpp jox leen ne yéen ñii yéen war a dundal tiim bi ñu nga xam ne yàlla ñoom la tudd seen dee moom dina ko tudd am na ñoo xam ne yàlla si boppam moom moo leen am na ñoo xam ne daf koy jaarale si nit am na yoo xam ne daf koy jaarale si rab am na yoo xam ne daf koy jaarale si garab am na yoo xam ne si ngelaw bi la mu koy jaarale am na yoo xam ne si géej am na yoo xam ne kenn xamul fan la mu koy jóge dara mun na koo màtte rek melentaan bu ndaw mu doxee si feebar rek dee su ko defee nit ñi commencé di ragal melentaan fekk melentaan reyut yàlla si boppam moo jaarale rey bi si melentaan ñaata nit ñoo jógee fii ni dem baagu bi est-ce que gars yi xam nañ seen de dee xamuntoon ne suñ demee dinañ dee de nit ñi kay ñoom ñoo nekk di wax ne yéen soo leen demee si baagu bi kat di ngeen dee waa we bi ku see xaru la baagu bi ku see dem nekkul xaru ku yàlla tudd na di nga dem foo mun ta jaar boo doon feebar ba boo mun a dox di nga fa dem bàyyi foos ndaxte moom si boppam moo ko tudd ñoom seen bopp bu leen leereen suñ demoon si gaal bi dinañ dee duñ dem fii lañuy toog ba lu leen di fekk fekk leen fi ndaxte di nga gis am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki di wax nit dafa diw dafa xamoon deyam xamutoon deyam de dafa dem fekki deyam dafa dem lan fekki deyam ndaxte kenn ku nekk am na fu yàlla bind na yow place sàngam ngay dee place sàngam ngay dee loolu noonu yëpp mu ngi si lawhul mahfuz boo xam ne yëpp mu ko bind teg ko kon su ko defee foofu noonu nit ñi war nañuy jàngat bu baax ana naka la yàlla di reyee lii su dee amee loolu moo ko sabab nañ ko delloowaat yëpp suñ suñ borom ndaxte moom moo rey moom moo dundal kon képp koo xam ne gis nañ ko mu faatu xëy na rey boobu noonu yàlla sa loxo la ko jaarale waaye nekkul ne sa man-man ak sa sañ-sañ lu dul ku nga xam ne dañ ko àtte ci ak ku nga xam ne dafa dem xeex ci xare ñooñu noonu seen dee bokkut ndaxte ku nga xam ne dafa dem dee ci xare moom ngir islaam mu taxaw moo tax mu dem te bu si dee kat moom shahid la ñoo noonu am nañ place aljana ndaxte ñu ngee dox ngir islam taxaw ku nga xam ne dafa dee si ndox kooku noonu dina nekk shahid ndaxte suñ borom moo ko labloo ak ku nga xam ne dafa lakk ak ku nga xam ne dafa des si matu ñii nii yëpp shahid lañ waaye ñu nga xam ne nag seen moromi doomu aadama ñoo leen jàpp rendi leen loolu noonu des na seen diggante ak seen borom ndax te yàlla dina leen fa atti ndaxte am na rey yoo xam ne nit ki moo koy def fekk ndogal yàlla de waaye nit ki moo koy def moom si boppam yow leer na ne tey boo tiyee woon paaka tey ngeen nit ki dinaa la rey seytaane mooy téye sa loxo bi puus ba nga dem rey kooku noonu na la jamal te seytaane si boppam yàlla mu ngi ko jox doole ba nga xam ne boo paree def lu ñaaw du du la si delloo gannaaw mu def lay gën a forcé puus la demal nga def nangam te boo demee ba def nangam lu rëccute du gan yéen xëy su ma xamul lu tax du ma ko def. de si boppam dafa sérieux de ay dégg nit ñi naan bu ñu ko waxtaanee dañ ko war di ko waxtaanee ndaxte lan daf ñu delloo si suñu borom diw faatu ñu jël takk ba mu baax yóbbu si jumaa ji sang ba mu set jullee enn yóbbu teg war a dugal ci biir bàmmeel ak bàmmeel nu mu garaawee ak bàmmeel nu mu tàngee ak nu mu nëbbatoo ak nu mu lëndëmee mu nekk kumpa goo xam ne kenn xamul lan moo nekk dox ci biir boo xasee ba faatu jeex na takk desetuloo dara ci kaw àdduna lu dul ñetti mbir yi nga xam ne yonent bi wax na ko benn nga am doom baa nga bind fi téere baa nga bàyyi fi loo xam ne nit dañ koy jëfandikoo lii kese ku nga xam ne moo faatu loolu rek la deseet waaye su paasee loolu noonu desewul dara si ko àdduna lu dul ñu ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko bari na ñoo xam ne faatu nañ seen nit ñi nekkuñ di leen ñaanal loolu noonu si boppam am nañu dal dafa am benn waay boroom alal la jaamukati yàlla ku baax mun a may liggéey ci diine waaye bu mu demee ba faatu doomam ak jabaram yi ñépp dañ ko fàtte mu am benn saxaaba bu doon romb mu dégg wax ci bàmmeel bi kuy oote mel ko eey eh, yow waaju baax jële yow nit yàlla bi yow laa nekk di waxal mu def ni gisul kenn mu continuer mu ooyaat ko si la delluwaat dem toog mu fekk ko si bàmmeel bi mi ne ko yow li xew nga may oo mu ne ko waxal na suma waa kër xanaa dañ ma fàtte fu ma tëdd nii si suma bàmmeel bi tàlliwu ma mu jóg dem gisee njaboot ji ke gën a mag taaw mu oo ko mu ne ko yéen seen papa lu mu leen jàngaloo ne ko ñun de suñu papa de jàngaloo ñu dara jàngaloo ñu alxuraan jàngaloo ñu dara mu ne ko lu mu nekk di dundee si bàmmeel metti na torop prépare leen seen bopp ndaxte gis naa ko mu ngi si boori safara bi mu ne ko déet waa ji toogal silam ko ne ñun suñ papa daay maye suñ papa daay joxe azak suñ papa daay aji mag suñ papa daay oor suñ papa daay jàng quraanul karim guddi bu jot dinga ko dégg te lu guddi guddi gi sori dina di nga ko gis muy jóg muy naafi la kon léegi ana lañ lañ war a defar suñ papa kon mu ne ko nag toog leen nga oo njaboot yëpp ñaanal seen papa seeni toog wóor ñoom ñëpp kenn ku nekk def seven hundred and seventy seven laa ilaaha illallah 777 777 laa ilaaha buñ ko defee ba pare si ëllëg si waa ñu ñëwoon fekk papaam mu ngi tëdd si biir bàmmeel bi si ëllëg si mu rombaat mu gis papaam ñu ngi koy njoowaanoo si njoowaano yu nga xam ne ñu si biir ajana bi ngir ñaan buñ ko ñaanal si la dem wax ko waa famille bu nga ko waxee mu ne ko ah kon ñun suñ papa kon lii la doon dundee si la doom yëpp toonaat seen jikko nekk ay nit yu baax di def seen papa lam daan def kon suñ papa jàmmukat yàlla la woon ba nga xam ne yàlla gërëm ko taxul doom yi dellu gannaaw suñ papa faatu na liggéey na si yàlla taxul doom yi dellu gannaaw nañ continuer di ko ñaanal ku dee si boppam soxla na ñaan ku dee si boppam soxla na ñaan suñ ko ñaanalul rek problème dina ko fekk si biir bàmmeel te niw day sonn niw si boppam day sonn ndaxte keroog bu mu faatu rek commencé naa jaaxle fan laay jëm nu may fekki lan la na lan laa defal suñu borom ndax tooñ na tooñ naa nit ndax bàyyi naa loo xam ne farata woon lu ma war a noonu def ma bàyyi ko si gannaaw suma ma suma borom ak nit ñi ku faatu moom loolu lay nekk di xalaat ba keroog bu may gisee yoonam ca biir aljan xelaatam foos xelaatam lan laa defal suñu borom ndax yàlla nangu na ko wala nanguwut ko loolu dina nekk di ñëw si xelaat bi ba keroog bu ñuy waajee dem suule muy wax waaye kenn du dégg lu dul suñu borom kese moo nekk di xam nu may wax fu ngeen ma jëmee fu ngeen ma jëmee bàmmeel bi lëndëm na xóot na amul kenn ku lay wéttali bañ dem bañ la dugal ba pare ba ñëpp dem am waa juñ tuddee jëf la nga defoon lépp moom mooy ñëw sa biir bàmmeel fekk la alal du ñëw xaalis du ñëw mbokk du ñëw maam du ñëw waxkati sax géwéli boroom nga xam ne ñoo dàqa wëy kenn du ñëw ñu la gën a noon jege kenn du ñëw jabar sax dañuy nekk di yuuxu naan woy sama ndey ak ana bu leen ko yóbbu ak bàyyi ma ànd ak moom nga bu buñ la xasee bu dugg si bàmmeel ñoom ñëpp nii lañuy def ndaxte foofu noonu kenn amatul fa pexe jëf moo ñëw toog si sa boor ne man maa ngi nii bu nekkoon na lu baax nga doon def maa ngi nii bu nekkoon na nag bu bon bi safaan bi boobu noonu tamit mu ngi ñëw kon su ko defee lii jàngat la ndaxte yonent bi moo wax ni nañ di bëri di ko tudd moom dee ci boppam iksiru zikro alxaasimu li zaat nañ bëri li nga xam ne dañuy tudd lan dee di ko waxtaanee su ko defee yàlla dollal si ñun yërmande mooy tolloo lépp loo xam ne suñ si duggee rek ab bàkkaar wala ab mbon la ñu jural dee ci boppam booy toog di ko waxtaanee yow sa bopp yow mu koy waxtaanee da ngay dem ba tiit ba ragal ba nga xam ne yow lu ngay wax nii kat am nga si solution moo nekk lan bàyyi lépp loo xam ne yàlla moo la ko tere boobu mooy solution bu gën a gaaw waaye fekk yaa ngi koy wax amuloo si xol la ragal yàlla loo ko wax ak lu mu tàng tàng tàng taxul nga dellu gannaaw mbir yépp yàlla moo si jiitu te si moom lañ bay ko te si moom lañuy dellu ba àdduna di tukki nag amul kenn koo xam ne dafay jóge fii nii di dem si benn planète te planète yi mun nañ nañ waaye benn bu nekk am na lu fa yàlla def keroog ba yow man xiyam taxawi dara du des lépp lu muy faar comme yow moo bind si balaa boor ticca bi ne na fompare soo fompee dem na ticca bi loolu na du ko bindati dem na yëpp lañuy ñuy kon su ko defee ñu jàngat dee bu baax ma bàyyi la nga continuer incha allah. jërëjëf ah, oustaz ah, si leeraange boobu ah, ko waxee yàlla ku mos dund. bakken bu mos dund waaw dina mos dee mhm. kon dee dafa nekk loo xam ne mhm. ak du du du mu kenn du si mucc même suñu yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën all ah, manquance bu yàlla mhm. bi sax yàlla yóbbu na ko. daa mm. si suñ prophète bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne. no matter where you may be death is going to reach you even if you are in the 45 towers God is death is going to meet you. Mm. remember frequently destroyers of pleasure is death. Mm. mooy ne bànneexi àdduna bu nekk dee moo koy yàq. dee moo koy yàq. daa ko tëddee kenn bi su mucc. ak képp ku nekk mos naa bakken mos na dund. bakken bu mos dund bakken bu mos dee waaw. kon let's try by all means ñu prepare suñu bopp for death dafa nekk loo xam ne bi have to prepare ourselves for death. Mm. in essence da nga ne you have to prepare your yourself di def loo xam ne yàlla lool la ñu santaane suñu yonent bi ah loolu la wax. ak loo xam ne dañ ko war a def si alquran bi lu baax ak xadis yi ak sunna si ah. Mm. ak farata yi nga xam ne loolu moo xam ne waruñ koo bàyyi si gannaaw. Mm. moo loolu moo nekk di préparation to death fa di préparation kenn ku nekk dafa war a préparé mm-hmm. al mawtu mm-hmm. yati baxtatan loolu noonu mm-hmm. suñu borom moo ñu ko waxal dee si boppam day bette te suy ñëw kenn du ko yëg ndeysaan nekk di dajale xaalis beeg alal beeg pati baa ngi bari fu nekk ñu dugg génn xam ñun doomi aadama yi rek suñ mbir suñ bi dafa bari bala eh, ñu commencé dinaa fi tabax kër ak étage ak lépp yàlla mi ne waaye bu ngay def loolu yëpp est-ce que yaa ngay préparé dem yi ñëw sa gannaaw de bu nekkee na nag suuraale la wokk bàyyiloo sa xel ne lépp lu may def nii am na waay juñ tuddee dee bu ñëwee ba nag moom ñooy ànd te duma fi ba loolu fekk suuraale loo ko yow sa xel dangay génn dafay génn si dee sax yow da ngay fàtte na dee am na te bés bu mu la bettee rek keroog dafay métti du la xaar préparation bi yëpp préparation dee moo gën a am solo gis nga dee ku koy préparé su ñëwee du la bett ndaxte xam nga ne yow kii su ñëwee du la fi bàyyi am na ñoo xam ne yëg nañ seen dee comme bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga demee ba nga xam ne yaram bi dem na ba bañ. mu toog waxa saba euh, saxaaba yi ba pare si lañ door a xam na kat kii si feebaram bi ni dina si demee moom yonent bi si boppam yàlla moo xamal na ko loolu noonu ne feebaram bi du ko fi bàyyi ndaxte métti woon na torop ba ko feebar bi attaqué woon si bàmmeel bi lañ demoon dem am néew buñ ñu suuli rek bu ñu ñibbi si yoon bi rek bopp bi commencé métti ñu jékki-jékki gis ko mu ngi toog ñu ne ko yonent bi la xaw mi na bopp ñu ne ko ah doo jàng lu mu daan jàngal nit ñi seen bopp yu wér ne ko ah man de jàng naa ba sonn def naa lu nekk waaye terewut feebar boobu noonu si la feebar si la feebar one week bés bi bu mu delluwaatee si la faatu moom sallallahu alayhi wa sallam comme comme comme moo dem kenn ku nekk war nañu mën a bàyyi xel exemple si moom ndaxte moom bala moo dem dafa liggéey prépare boppam ne xam na ne moom missionam bés bu mu matee yàlla du ko fi bàyyi kon ñun tamit ñun si ko àdduna bi fii nañ commencé di def suñu mission ni boppam mission ni bopp yi yaamu yàlla génnu si baax génnu si defar mbokk génnu si defar sa bopp génnu si defar sa doom yi génnu si defar àdduna bi génnu si waaye dimbale jullit si génnu si xataa sax ñu nga xam ne sa nekkuñ jullit sa dimbale leen sax génnu si ndaxte képp koo xam ne dimbale nga ko si lu baax tiyaabo kese rek ngay am képp koo xam ne dingal ko ko lu baax tiyaabo rek ngay am waaye képp koo xam ne génne ko si coono tiyaabo rek ngay am képp ku jël ragal yàlla def ko si sa xar bi mu nekk sa seetu yow foo toll yàlla rek ngay gis kooku noonu mi ngi prépare boppam ne man bés bu ma faatoo kat lii yëpp yàlla dina ma ko laaj waaye neexuta mun neex naa wax waaye neexut a mun ragal yàlla si bopp moo nekk loo xam ne nekkul lu yomb xaasatan dee buñ nekk di wax dee moom fu ko waaye dégg rekk day tiit ndaxte xam na ne ku dem moom dem na ba pare kooku du ñëwati waaye lan saxaaba yi dañuy wax ne buñ na la nit faatu na boo demee ba ci armeel konteel sa bopp ne man suñu faatu ñu si laa bokk ndaxte mi ne ñu ne boo taxawee di nga gis sa bopp wax nañ dëgg boo demee si bàmmeel danga gis ñëpp a ngi tëdd imaam yéeg boroom xam-xam yéeg boroom xaalis yéeg bandi yéeg saay-saay yéeg ñu ñuul ñu weex yépp ñu ngi tëdd na ceel nga taxaw xool ñëpp nga konte gis sa bopp yow si ñu tëdd si nga bokk kon loolu si boppam war na laa mën a mën wanne man eh, nag kat fogaru jot na wala la gàddaay jot na commencé paagaaleel bagage yi takkaaleel ëmbay ba mu baax ndaxte dee su ñëwee kat fi bàyyi comme que ñi ñëw tëdd fii ni te yàlla ñu gën a gërëm tamit ñu ngi tëdd si suuf si kon man mi nga xam ne defuma dara si ko àdduna kon man tamit naa sóoraale la suma bopp ne mi ngay ñëw te su ñëwee kat du ma fi bàyyi te moo wax si Qur'an ne inna al mawta alladina na fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila alami al gaybi wa shahada mi ne dee bu nga xam ne yéen a koy daw mi ngay ñëw di taseeg yéen ak foo leen mënta dugg di ngeen taseeg moom moom dee bu boobaa ñu taxañ leen delluwaat leen si suñu borom mu nga xam ne moo ñu wàcce woon si ko àdduna fii képp koo xam ne yaa ngee daw di yaa ngee jege moom sa ati nu ñuy gën a éegi yaa ngi koy dem fekki moo xam nag sa ati fu ñu war a àgg dina fa àgg wala mu ñàkk fa àgg waaye di nga taseeg dee si boppam kenn xamu ndax si sa lal la lay fekk wala sa place liggéeykaay wala fooy jàngale wala fooy segee di julli wala fooy waxtaane mbaa xew la mbaa ceet la mbaa foo munta toog wala si football bi la wala foo munta nekk moom daal mi ngay ñëw ñaata nit ñoo taxaw di football fu ñu téye bool ñu ne mes dem nañ am na ñoo xam ne si biir julli am na ñoo xam ne fu ñu toog téye sata la naan jàpp ni benn foofu lañ ne teg te jàpp gi dem na ba mat ndeysaan taxaw di julli fu ñu taxaw noonu ñu em fa rek laata rek moo nekk daal suñ benn yaay bu baax yal na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana muy yaay loo suñ yaay jooju noonu dafa ànd ak borom këram mu am gaay benn xew buñ demoon buñ ñibbisee si guddi gi mu defaral boroom këram reer ba pare ba gaay ju liggéey moom mu yooru ndànk dugg si biir néeg jël mbàjjam sàngu ñu ñëw rek fekk dem na kenn xamul li xaw ñi naan xay kii moo jógee woon si xaw bi fii ba ñu ne kii de ñëw na ba julli ba pare teg reer ne maa ngi dugg si biir ne ko dee nuyu na ko ñu tëdd noonu rek foofu la em kon nga gis ne kooku noonu bett na ko waaye nekkul loo xam ne dee ju métti la si moom ndaxte dee bu simple la dee ndaxte dafa am ñoo xam ne seen dee dafay métti sakantuma suñ wàccee suñu suñ àggee si wàllum sukuraat boobu noonu ruux yi suñ koy génnee dafay tàng dafay am doole ndaxte da nga gis ñoo xam ne seen ruux yi suñ koy génne am nokkit bu baax la ñuy def nu ngi koy gën a xëcce si tànk yi la ñuy commencé suñ commencé si tànk yi nga commencé suma tànk baa ñuy métti bosal leen ma ko ñu commencé di bos muy éeg ñuy ñëw si pooj yi ngeen ah suma oom yi bañ nañ muy dem rek ñuy gën a xëcc ndànk-ndànk rek ñu gën a xëcc xëcc bu yàggee loxo yi doo mënate ngay commencé naan nii loxo yi loxo yi di dem ak di ñëw bu yàggee nag mu ñëw ba si porox bi nag lépp lu la saxaloon dara du jàll ndox buñ la koy sexal si làmmiñ bi fii la mooy am lu dugg dara du jàll léppay càng ñu daal di génne làmmiñ bi ndànk ak yëpp rocc ndànk dañu toog rek baat bi ne nii sayt fekk dem nga am na ñoo xam ne nag seen roox bi buñ koy génnee mettit la mooy doon si ñu nga xam ne gomuñ yàlla ak borom ñaawteef yi ndaxte dafa am ñoo xam ne yàlla su leen di rey du leen yërëm xanam de bu métti la lam di rey am na ñoo xam ne si ay jam-jam nit ñi dañ leen di téye di leen jam bañ dee ngir lan seen jukko ak seen jëf kenn ku nekk noo nekkee ci kaw àdduna bi noonu lañ lay àttee du dut ku nga xam ne yàlla wàcce na ci kaw moom ak yërmande ndaxte moom moo wax ne inna rahmatallahi waasia yërmandem dafa yaatu torop ci kaw àdduna bi mun na laa seetaan ngay def lu ne waaye bu ñu àggee yomal xiyam moom rekk moom rek mooy wax ñëpp na waaw foofu déedéet amut fa lu mu wax rek waaw te daf ñu sant ba pare digal ñu tere ñu kon ana ban façon dëgër bopp lañ amee ma jégalu si kàddu gi ba nga xam ne lépp loo xam ne digal nañu ko ñu see xaw a am jéng-jéng mbala ñu see aw xam euh, di si am ay ñaari xalaat foog naa ne topp comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko defee ba mu rafetal lépp. yàlla door koo jël keroog bu mu doon tàggatoo waa màkk métti woon na gars di jooy mu ne leen maa ngi nii di dem xëy na du ma ñëwati te fooguma ne at beneen at buy ñëw ndax dinañ tase ñu bëri xam nañ ne kon bu paasee at bi yonent bi duñ ko gisati dafay dem mu nekk lu yéeme mu am ñoo xam ne dañ am sañ-sañ comme nu ma ko waxee woon mu am ñoo xam ne dañu am sañ-sañ sañ bu demee naka ñoo xam ne dañu oote seen bopp ay sëriñ lañ suñ mbokk yi di dem si gaay ñu leen di defaral ay code ñu leen di bindal ay xaatim pour nga rey nit boo demee ba pare mu defaral la loolu nga dem def lu mu la sant yëpp ba nit ka dee ne na ah man de suma sëriñ bi kat jàmbaar la di kon suma sëriñ bi mun na li nga commencé di ko utal ay nit te sëriñ bi lu def noonu mënut a rey kenn sëriñ mënut a dundal kenn yàlla moo fa jaar ba loolu sotti léegi bu ko defee nag suñu borom nag dalaa naa tekk di la seetaan ndax yow lu nga def nii ndax di nga si am xalaat wala déet gis nga yàlla bala mooy jël action si nit dafay toog seetaan leen comme ni su defee bàkkaar balaa malaaka yi di bind ñoom ñaari malaaka yi balaa kenn di bind ku nekkee di eh, eh, ndeyjoor dafay wax ne may ko tuuti xëy na mu tuub dina la bàyyi ñaar ñetti fan ba ñeenti fan boo ko tuubul rek mu bindal la benn tiyaabo benn bàkkaar waa nakam nag nga def benn tiyaabo ñu bindal la si fukk wala lu ko ëpp nga def benn bàkkaar ñu bindal la si bàkkaar ngay nelaw ba sa benn boonu ñëw romb sa fukki te yàlla ne kenn waruta rey ku du man man maa eeyoo rey comme man maa leen dundal kon man maa eeyoo rey kon lan moo tax nit ñi doomi aadama yi di am sañ-sañ di jël nit ñi di leen rey si lu nga xam ne nekkul dara itti na de dem si sëriñ ñu defar la tuur lu ñuy bind lu ñuy bind sotti ko si ndox rek ne nii boromam ne karab ngeen ne suma sëriñ yenn saa yi bant la ñuy jël bant takk ko def ko cross nii mm-hmm. jël bopp ni takk ko jël defal ko mbagg nii kooku noonu lu mu def bu nee pour la jël jam ko ko boromam dina ko yëg bu demee ba jël paaka teg ko si baat bu ne ko nii boromam baat bi dafay dog mbaa mu dee foofu noonu ngir lan nit yàlla si boppam moom moo ko jox xam-xam waaye lan mi ne xam-xam bi nañ ko jëfee si lu baax suñ ko jëfee si safaan ba rek dinañ am problème te lépp loo xam ne def nañ ko si koo àdduna bi fii suñu borom dinañ ko atte dinañ ko laaj benn par benn amul dara mu see yàkkamti xamul diggante ak ñun nit ñi de ndaxte problème boobu noonu si ñun nit ñi la des waaye su desee si moom rek moo xam na na xalam ñu ngi réglé ndaxte yow man xiyaam bu ñu fa yàggee ñun doomu aadama yi ñun ñoo fa yàggal suñu bopp ngir lan tooñante bu ñu doon def rey si boppam dañ war di ko sooraale dee bu nga xam ne mun ta ñàkk tamit dañ war di sóoraale dee parce que anytime mu ñuy nuyu anytime ñu ngi ànd ak moom moo xam dig bi dina sori moo xam dina jege ndax dinañ ko fekkee wala duñ ko fekkee dina màgg ak moom wala duñ màgg ak moom dee moom ngay ñëw rek fa innahu mulaaqiikum ñu ngay tase moom every day noo soo eewoo konteel na am na fan yu manqué every day yaa ngi eew kontel kontel konteel ba nga dem fekkee dee fu mu taxaw si bunt bi rek suñu taxare mi ne la ah accès ngeen ne la waaw mi ne la acca nañ dem boo noonu amul yàlla may ma one seconde amul may ma five minutes de wa ida jaa ajaluhum la yastaxiruuna saata wala yastaqdimuun time bi su xasee ba jot duñ si yokk ba pare si wàññ comme àdduna lu mel benn bunta la alaxira benn bunta la dem fa comme boo xasee bu dugg si bunt bi buntu bala ngay dem génne doo mën a dugg si buntu bi ba pare génne si beneen buntu bi déedéet buntu bu nga duggee tëj nañ boobu comme ko xas nga ba garee àdduna tëj nga bunta bi si boppam tëj nañ ko bunte àllaaxira moo lay nuyu mu lay xaar et puis nooy gën a puusoo muy gën a dem ba nga dem ba mu téye sa loxo diw naam kaa ñuy dem yàlla soo ma mayoon five minutes ma jégal waat bàkkaar yi yàlla mi na ne déedéet de time amul <laughs> bu ni ko dee time amut lu ma fi def rek waste time la yàlla moo tamit su yónnee malaaka yi moo tamit ne leen time amut lu ma fi def rek waste time la nañ dem booba nag nga xam yow lu ma nekk woon si ko àdduna passé na benn bés Seydina Ali daf doon romb mu ne xaaral ma dem siyaare waa bàmmeel mu dem siyaare moo gis gaay yi ni ñu nekkee si bàmmeel mu ne leen seen alal yi ngeen bàyyi woon ci gannaaw ay nit jël nañ ko seen doom yi miiraas nañ ko seen jabar ni ñu jël nañ ko ñu ngi dëkk ak ñoom lépp lu ngeen bàyyoon si kaw àdduna nit ñi jël nañ ko léegi nag yéen ana lan ngeen may wax pour ma yóbbante ko gaay ñoom ñu nga xam ne ñu si kaw suuf mi ne leen soo leen àggee ngeen wax gaay ali mi ne leen xam naa ne yéen fu ngeen tëdd ni mun na leen di wax waaye man mun naa leen di waxal da ngeen bugg a wax ne fatazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa da ngeen ut yóbbal te yóbbal bu ngeen ci yóbbali mooy la ragal yàlla kon nañ fexe jël ragal yàlla ak ngóom bu mat sëkk ñu def ko si suñu xol ñu génn si iñaar ñu génne ci soxor ñu génne si mbañante ñu génne si noonoo ñu génne si xasante ñu génne si saagante waaye ñu génne si lëpp loo xam ne day lool diggante jullit ak moromam ragal yàlla kese lañ fi deset te nekk na loo xam ne yombut gëm naa yàlla neex naa wax si làmmiñ waaye jàpp ko si xol bi boobu problème la ragal naa yàlla neex naa wax si làmmiñ bi waaye jëfe ko si boppam problème la tey na ñu sedda woon fii xaalis mën naa yoo nga seet jox ñu kenn ku nekk one million nga seet dama la jox forty thousand bi jël sixty loolu bokkul si ragal yàlla loolu si ñàkk màndu te si la bokk te si biir màndu te ragal yàlla mu fa kon bu ñu joxee one million ñun ñaar war naa laa mun a jox five hundred thousand ma jël five hundred thousand boobaa mu em waaye lu ma la si ëppale rek atte baa ngi ñëw yow nga xiyam dala si boo yokk rek dinañ la ko atte te dalasi boobu noonu boo sooraale woon ne man keroog su ma demee ba dee dalasi bi dinañ ma ko laaj te nga ko delloo njaaxum mbaa ngi bëri si dëkk bi de nit ñi ngay jël loo xam ne moomuñ ko ba pare ñi ngay lekk nit ñi ngay lekk alal nit ñi si li nga xam ne nekkul yoon si nekkul dara maa nit ki rek jël alalam jël léppam ba yóbbu ko si koot kon soo xelaatul bàmmeel alal boobu noonu du la dimbale si bàmmeel bi de moto yu rafet yooyu noonu duñ la dimbale si bàmmeel bi de sa jëf bu bon bu nga jëfoon moo lay fekke si bàmmeel bi boobaa mbugal commencé tàkk na commencé di ñëw sa kaw ngeen ana laa def nii fekk am na ñoo xam ne bu nga nekk si ko àdduna yàlla leen toroxal buñ ko sóoraale wut lu bëri dina yàqu la na torop te suñ ko bàyyi tey xel du dox kenn ku nekk bu xëyee suba teel nda wax ni ngoon gi du fekk mun naa am ngoon gi du ma fekk bu la si ngoon gi fekkee di nga wax ne guddi gi duma ko mottale waxal ne guddi gi duma ko mottale guddi gi bu la si fekkee boo set boo eeyoo boo eeyoo santal yàlla bu baax ndaxte moo la ko may am na ñoo xam ne teg nañ seen palaan ba pare dinaa sampal ñii school ñii dinaa leen defaral kër ñii dinaa leen defaral juma ndeysaan fu ñu tëddee seen lal bi foofu la yem eewuñ kan moo ko waxoon ne sa lal bi boo fi tëddee di nga fi jóg te bis boo ko ko waxee mu gis boppam ne diw moo ma ñaanal lii diw moo ma wax ndàngam fekk sa time moo jot kon nag kenn ku nekk xamul time am waaye nag balaa sa time di jot fexeel prépare sa bopp yow kenn bu ñu ne la acca match bi commencé na aha central football bi commencé pile waaye match bi ah, ngeen ne déedéet su ma kaw a ref bi mu ne la génn boobaa mun nga sa jëlee yow la kaat reer kaat te red card moom ku ko am si match moom doo pile dañ laa génne si biti kon nag balaa red di ñëw di takkarnaa si suñu kaw nañ dem tiréeni tiréeni si jàmm yàlla tiréeni si xam-xam waaye tiréeni si jëfe ko tiréeni si mandu tiréeni si lépp loo xam ne yàlla moo ñu ko diggal ak terey balaa dee du ñu nuyu laa na saate wala yastaxdimu moom yàlla fu ko teg moom amul kenn ku ko mën a daaj ñëw na ñëw na nañ dem te kenn mënut a wax ba yàlla delloo ko gannaaw te kenn mënut a wax tamit ba nga ko yóbbu kanam kon nekk na loo xam ne lu métti la bu ko defee mbokk ñu sóoraale ko bu baax topic bi xaw naa métti torop ndaxte ñun suñ bopp sax antanuñ ko tàng na waaye waxtaane ko si boppam moo am solo suñ ko defutee rek dina gaaw a fàtte te kuy fàtte yow mal xiyaam kuy fàtte yow mal xiyaam yàlla du la gaaw boole si nit ñi ñuy toog ñuy xalaat suñu diggante suñu borom ñu ni neen ana luñ def ana lan lay liggéey si ko àdduna ndax baax na wala baaxut ndax suñu borom gërëm na ko wala déet lii fekk ñu ngi koy xalaat yàlla ngi wàcce si ñun yërmande comme yonent bi nu mu waxee ne ay nit mbooloo buñ toggee si biir néeg ñu ñuy jàngee Qur'an di ko firilante si ñoom yi neen seen biir yàlla mi ne dina wàcce si ñoom ab dal ngelaw boo xam ne ngelaw yu dal maanaam duñ tiit duñ jàq duñ def dara am na ñoo xam ne seen waxtu dee yàlla si boppam moo leen ko jox wan leen ko ba time bi si jotee ñoom dinañ xam ban time la dee kon ñun tamit ñu fexe préparer suñu bopp ndaxte xamul kenn la ak fan la ak naka la loolu si boppam kumpa la comme que dem na ba nekk kumpa nag kumpa googu nu boo ko bëggee xam fexeel góorgóorlu wala si mbir yàlla balaa taay moom di jot balañ laa jël si kuñ xas ba jël si amutut papa amutut yaay amul rakk amul mag da di xëcc fii ba suba waaye dem na waaye sama ndey jàkk eh, eh, eh, jóg kenn xamul fan lañ jëm si ko àdduna yu dul ragal suñu borom kese moo fi des ak jaamu yàlla àdduna bi tëddee na nu nga xam ne buñ dellawut suñ bopp suñ yàlla si bàyyi xel ay mbiram dinañ dem ba suñ taam yi dee jot ñu naan lan lañuy def si koo àdduna boobaa mu ne leen weesu na ba ngay am doole tooguloo woon jàmm sa borom ba ngay am doole tooguloo lijjanti ko ba ngay am doole jànguloo ba ngay am kàttan julliwuloo ba ngay am kàttan nanguwuloo oor waaye ba ngay am xaalis nanguloo boole sa bopp ñi nga xam ne dañ war a joxe azaka ba nga ko demee ba nga ko am ba mat boolewuloo sa bopp ne ñu war a dem aji màkka te gis naa benn palaan boo xam ne xaw ma nag lu si gaay nam suñ demee ba am xaalis ñu ne bëgguñee teel a dem màkk ndaxte suñ demee màkk soo ñëwee xam nga ñu ne ko dem màkk boo ñëwee yàlla bu nangoo sa aj bi rek sa bàkkari far nañ ko boobaa doo ñemee defaat beneen waaye ñu ne ñoom duñ teel a dem dañuy toog fii toog fii nii ba kii ba xaw a màggee nga dem Europe boobaa sa aj bi am na noo xam ne nu ma demee yàlla du ko nangu aj bala moo daax borom nekk waxambaane bu dégg mbaa mu nekk jànq nga dem aj ñaan yàlla nangu ko nga jib si waa tuubaat nekkandi ees lépp loo def mu barke waaye buñ dem ton ba doon màgget moto bu feeraay boo ko ñëwee may ko ni da nga ko yokkal coono maintenance bu dul jeex mu feere si xaalisam ba njëgi moto bi sax daf koy romb loolu amul njëriñ waaye moto bu bees boo ko joxee nit fu fu nekk mun na faa dem kon na nit noonu la war a mel waruñee toog ba di wax la ba ma yàlla jubal ak ba ma dem ba nekk màgget ak ba ma dem ba nekk mag yow xamuloo ndax di nga mag wala doo màgget kenn xamut kon nag nañ préparé suñu bopp léegi balaa temps bi di jot su ko defee ñu sóoraale suñu bopp neex na noo xam ne yombut waaw su ko defee ñu sóoraale bu baax a baax a baax. Ah, jërëjëf oustaz si ah, waxtaan bu am solo boobu li nga fi wax dafa ah, loo xam ne dañ fi war a bàyyi xel. fu ñu nekk nii amuñ dara lu ñu desee xanaa di jaamu yàlla di ragal yàlla di def lu ñu sant loo xam ne loolu la ñu sant. Hmm. te tamit ah, bu ñu fàttee suñu nit ñoo xam ne dafa dellu dañ dellu seen borom. Hmm. di leen ñaanal dañ ah, soxla ñaan torop si ñun. waaw dañ soxla ñaan torop si ñun saa yu nekk ah, dañ la war a di leen ñaanal di leen génne sarax. waaw si la bokk. bu ñu fàttee suñu néew yi. Hmm. kon nag maa ngi wax suma viewers yi and followers of this programme. thank you for your cooperation lii lañ leen fi amale tey suñu programme yi waxtaani islam waaye di leen wax ne rek a programme mu ngi need sponsor always danañ ko wax suñu programme suñ programme si need sponsor te sponsor will help us to grow ñu leen di ñaan ne if you interested to sponsor you can call the numbers on the screen di wax ne all our followers of Eco TV International thank you for your cooperation follow us on YouTube, Twitter, Instagram uh, Facebook and also TikTok. Eco TV International is worldwide. di woon suma caméraman bi jërëjëf si sa time bi oncle Ousmane di woon sister Janet ak ah, Aïcha suma édito si ah, jërëjëf si seen corporation bi ah, suma boss bu baax boobu tamit ama xam ne suma broda nga xam ne bokkuma ko ak kenn mooy oncle Sirifo Dabo di ko ñaanal saa yu nekk yàlla mooy ko fan bu mooy ko wér bi yàlla yàlla ko place am bi incha allahu rabbi hmm. waaye oncle Ousmane Tunkara tamit ñu ko wax ne thank you so much oncle Ousmane Tunkara for Habiba International waaye suma guest bi tamit dinaa ko wax jërëjëf time bi bu ma jël ñoo toog ci Eco TV International and deliver the important message that we expect from him oh Souleymane ñu leen di wax ne ñu la wax ne jërëjëf si sa time bi hmm. yàlla la yàlla jàppale la si sa liggéey bi the next week insha allah bi si Eco TV International si suñ programme yi waxtaani islam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala